da gis ku toog ci rukku bee naan benn lamine bu mu la jege. lamine dénk nañ ko benn butéel lamine butéel bi ñu koy dénk ban sens la ko man ban njëriñ. dañ xam ne ñii seen liggéey la ñuy def seen métier la yor gis nañ ci problème yu nekk ay Modou Mbaye ay ku nekk ñuy toog di la jiñ ay affaire te dara indiw ko lu ñu mbëri parce que tey man bu ma toogee ni sama entourage bu ma la Baye la jege Mm. Baye Balla moom bu ñëwee bu ma bëggee jege dañ koy rey parce que làmb la mm. am na ñoo xam ne bu toppee sa ginnaaw jaral nga leen seen bakkan mm. tey bu nit ñëwee mu leer leen ni kii dafa yàqal mun nañ ko rey te loolu ñun mbëri ñoo war a changer suñu jikko changer parce que tey maa ngi nii nekkuma ci làmb yéen a ma ñooxu dimbale ma seen i caméra léegi bu fekkente ne làmb la ma leen daw pour la xam dañoo war a xool lépp luy yàqu ñu koy dindi di teg fële man ñàkk ndam ak am ndam laa yamal jàmm doomu laa ko xeebu nekkuma nag ci làmb pour ay daan ak ay daaw la daal bi suñ Tuubaa laa doomu Koor bugguma luy yàq dara bugguma luy indi problème bugguma luy def dara bis bi comprendre bis la woon boo xam ne buñ woon ñàkk bëri nañ ko Franc yàlla defal na ko ndam maa ngi koy ñaanal ndam li jikkoo ci barke yonent bi